alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah bokki julli di bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Sëriñ Ousmane Mbacké ñu ngi yëkkati ab nuyoo bu tedd bu ànd ak worma ak màggal ak kóolute waaye ànd ak fedd li ak njëbbal di ko teg ci sa loxo mu jóge ci sëñ Abdul Xaadir moom sëñ Daaru li nga xam ne tey moo toog toogaayu sëñ Daaru Asan jaar ci sëñ Moustapha Fati li nga xam ne mooy jëwriñu kër gi waaye jaar ci sëñ Moustapha Diop bi nga xam ne sëñ Abdou Ndiaye tudd na ko léegi moo jiite mbooloo bi nga xam ne tey ñoo teew fii ci barab bi kon nuyoo boobu nag ñu ngi koy teg ci sa loxo ngir nga jàllale ko mu àgg ci sëriñ Ahmadu li nga xam ne moo fi Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ñu di ko ñaanal bu baax a baax yàlla yàgg suñ kanam yàgg ci gannaawam te mu àggale ay mébétam ci l'islam àggale ko ci yoon bii di yoonu Seexuna Ahmadul Xadim waaye àggale ko ci liggéeyal muy juróom Seex Muhammadul Mustafaa te yow mii nga xam ne daf laa doyloo ba dénk la liggéey bii nga xam ne tey moo woote woote bi moom lañ wuy si di diiwaanul muridiin da nga xam ni xëy na yàggoon na bi mu juddoo ci kër gi waaye nag sëriñ Ahmadu mooy ki ko beesalaat xëy na lu toll ci fukki at walla lu ko ëpp ah, def la ca jiit boobaam léegi nga nekk ci kanam te jiite metti lool te ami jafe-jafe waaye loolu yëpp rek ngor nga woon ca sama juddoo seen si Ahmadu Mbakke ngay faam ak yitteel bu ko mbirum sëñ bi yitteeloon yitteel bu ko diine yitteeloon loolee rek moo nekk ci yow moo tax liggéey bii nga téye ko léegi waaye li ci jiite mbooloo ah ñi ñu baree bare xam nañ ko ñu baree bare buñ ci doxee tuuti rek dañuy daal yokk dañuy daal di tàyyi fexe ba génn ca yow nag boobaa léegi yaa ngi ci kanam boobu kon yow itam ñu ngi lay ñaanal kóolute googu la sëñ bi jox yàlla na ko àggale fa kaw sa njort kawe njortam te ànd koog yow kon sëñ Abdou Khadir di yëkkati rek kàddu yu cant ak ngërëm ànd koog rakkam yi ak taalibe yi góor ak jigéen fuñ fi mën di ci cër bu am solo bii teraanga ji nga xam ne ci seen bu baax da ngeen koo yëkkati lu mag a mag lu jege Cheikh na Ahmadul Xadim bokk ci ñi ko njëkk a topp di ko Cheikh Mahamadul Bachir Sëriñ Cheikh Mahamadul Bachir waxe foog naa ni ñu ci exposé yi mu ngi wax ni min aqdami man ittabaa cheikhana sëñ Bello Assane Gueye bokk na ci ñu jëkka jëkka jëkka topp sunu sëriñ bi moom sëñ bi siiru laay wax di cheikhuna Ahmadul Xadim gën gaa bari mu tàmbulee ci benn ki jëkk ci sëñ Adama Gueye kon ba ci fukkeel ab li sëñ Bello génnul ñoom ci biirum njëbbal ci biir loolu nag am na ñu wax ni mooy ñeenteel am ñu wax ni mooy juróomeel am ñu wax ni mooy juróom-benneel loolu kenn ku ne ku xam histoire da xam ni histoire moom la baaxoo boo demee ci histoire yonent bi histoire Cheikh na Ahmad Khadim ak histoire bu ne loolu da cay am ndax doo xam ni dañuy jekki ba yàgg rek ñu ni nu demee woon ñuy laaj ñan jàpp ne xam nañ ca kenn ku ne di wax ak nattale noonu lay mën a deme waaye deesu mën a dogu dogu bu dog ci nii la deme waaye seen dala daal ñett yooyu moom weesu lu ko ñeenteel juróomeel juróom-benneel te loolu waxi Cheikh Mahamadou Bachir jëm ni bokk na ci ñu jëkka jëkka day daal di ah, fedd bi loolu da koy dëgëral waaye mu ànd ak moom lu yàgg yàgg yi mooy nun wax ne waa sama woo waaye luy foo alal arba'in kon ànd naag sëñ Touba lu mat ñeent fukki at loolu lépp wax yi sëñ Basiroo kon loolu yi mooy wane ni kooku yàggu naag sëñ bi loolu ndax ñeent fukki at moom lu baree bari la làq na ngërëmul sëñ bi loolu dikk na ci bay bi nga xam ni sëriñ bi ko jëmee ci moom dañuy wax sax dangay dégg lu bari naan ku sëriñ bi woy déedéet sëriñ bi man nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay woy woy moom mooy tagg ñi ci des nag day wax ngërëm lu leen gërëm ñaanal leen waaye loolu bokk nag tagg dangay dégg na ña xamul naan sëñ Tuubaa moom woy wala kum tagg déedéet jazaaka rabbuka fii daariya xasan xayran bi jaahi lasi innatihi xasan ak ñaar la fa alam bi an raadin anka muttalibun an jaaka alfawzu min mawlaaka wal mikal loolu it seeda la ci ngërëm lu tukkee فلا تزل فتقى رشد مجتهدا كي لا يلاقيك بالنسيان والفتن لو دينكان صح ممكن دينك kon loolu mooy wax ni Cheikh naa Ahmad Khadim mu ko ci sëñ Darou Assane kon da ko sant ñaanal ko gërëm ko wax ko ni it dana ko sàkkul suñ borom mu defal ko dam defaloon saxaaba yi ca ànd gañ àndoon ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba làq ngërëmul yonent bi làq ngërëmul suñ borom ba suñ borom dig leen lam leen dig te mooy wa saabiquuna saabiquuna ulaa'ika al muqarrabuun والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ba fam jeexee te zaalika fawzul aziim ah, loola rek la sëñ bi wax ne dana ko fàggul sëñ doona sax ci suñ borom foofu lu ñu ñëw fee Seydina Ousmane ca saxaaba ya ndax ni ko sëñ bi waxee moom dafay jëlaale jëm jawala jëm def moom Seydina Ousmane sëñ bi daa wax a baata nabi ila fajjin yëloo mu ridal minallahi sa tafdilu kubbaalu kon loola it moom la sëriñ bi wax ci sëñ Daaru Asan la yonent ba moom sa fàggul Seydina Usmaan ba mu defee joxoon ja moom la sëñ kon mooy loolu it mooy di dëgëral li ma wax ne da koo wax ni lam ci euh, saxaaba ya amoon ci Rasulullah laay sàkku ci suñu borom nga am kon sëñ Daaru mi ngi noonu ci gàttal waaye nag mu teel fee jóge jiitu ñetti at sëñ bi waaye nag ak njabootam gannaaw sëriñ bi nag mën a sutee wax lenn lu dul seen diggante ak sëñ Darou Assane moom ko wax diggam ak sëñ Touba la waaye saa buñ ko rombee rek dikk ci njaboot bi dañuy daal dikk ci Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu te loola ka ca jiitu sëriñ euh, Abdou Fatim Baalo nga xam ni moo mag ci doomi sëñ Daaru Asan waaye sëñ Fallu Njaay mi nga xam ne moo sosoon ci moom rek te xilaafa sëñ Daaru ci mbooloo mi ak jiite liggéey bi moom féete woon ci moom loola sëñ Abdou Fatim Baalo dafa doon ci mam yi la bokk sëñ Daaru Asan ko ci dëkkam bu mu doon sañ bu mu santoon ñu di ko wax ah, darul xadim ñu gën koo xam ci ah, ah, daaru lëmboodeel ndax dëkk bu ñuy wax lëmboodeel bu fa nekkoon bu fa bu bu mu dendoon tax ñu di ko ca dàkkantal naan daaru lëmboodeel moo gën a siiw waaye sëñ bi daarul xadim da ko tudde sëñ daaru asan nag daa dëyloon foofu seen Abdou Faty Mbaalo mu nekk fa moom loola tax na kon moom naka jekk dundam gépp foofa da ko féete ba fii mu ñuy wax ak yéen ci Touba gi kër sëñ Abdou Faty Mbaalo te kër yi doomi sëñ Dara Assane yu baree bari am na fi waaye kon kookay dégg ndigal ak fonk ndigal moo tax mu des foofee ca njàmbur ca ndigalul way juróom sëñ Dara Assane ba tax na sax ci goxub Touba beeg li ko wër miinuñu ko fi waaye loola rekk la su ko defee ñoom ña ca des nag sëñ Fallou Ndiaye ma ca mat teel ñëw fii lool ànd ak moom Mouhamadou Moustapha fekk boobu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi ci liggéey bi nga xam ni moom la ko sëñ bi bàyyee ngir taxawal yoon wi nos yi taxawal naal yi nga xam ni ak bëgg-bëgg Cheikhuna Ahmadul Xadim yi nga xam ni moom la ko dénkoon te loola lu ci gën a fees di liggéeyu jumaa ji te loola booba ba tey sax muy liggéey bu rëy rëy ku ko tàmbali woon waaye booba la raw ndax booba kenn ku ne xam na ni xaalis bareewul nii mu baree soree naag baree sax nii mu baree te lépp booba xaalis a koy def ak xam-xam ak i pexe akum xel ak doole kon loola taxoon na Cheikh Modou Moustapha radiyallahu anhu soxla woon na bu baax a baax ku ko jàppale wala ñu ko jàppale ci liggéey boobu waaye kon it dañuy daal di yëg foofu ni Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ku amoon yaakaar ak kóolute ci njabootu sëñ Darou Assane la ba tax na mu teel leen a ñoddil boppam taf leen ci boppam jegeel leen boppam ah, fa tabaarakallaa def leen ñuy ay jëwriñ ci liggéey bi loolu lu wér la lu saxasax la ba tax na kon sëñ Fallou njaay moo mu nga xam ni moo jëkk a wuutu sëñ Darou Assane ab taxawaayam ci bi ñuy gas carrière bi ci ndokk di ko andi Touba di ci liggéey jumaa ji ah mag ñëpp xam nañ ko am na mag mu ma mas a wax ni léegi de la coow li bari yëf yi waa yaatu ku ne di tëggu waaye ca ngasum carrière ba day jalub seex Modou Moustapha Fall moom seex Ibrahima nga ne jalub sëñ Fallou Ndiaye moom sëñ Dero Assane nga ne moom nga daa dégg ñaari jal yooyu day ñoo fa fesoon fes goog fu waay toll di ko séen te loola kuñ ko waxit te nga xam ñooñu ñaar da nga ko nangu bu baax a baax ndax xam nañ ni ñooñu ñaar kenn ku ne boroom mbooloo la te seen mbooloo déggal na leen ah ndax bu dee sëñ Dero Assane sëñ Basiroo ko seede ci bari mbooloom ba muy wax di melal sëñ Daaru Asan ci melokaan yi nga xam ne mënees na ko cee ràññee bokk na ci mu ne kasiiral atba almuridiin sëñ Daaru Asan moom sëñ Basiiru moom Seex Moodu moom sëñ Tuubaa mooy wax sëñ Daaru Asan day ku bari ñu ko topp la waaye ñoo ñu ko toppit nag ñëpp day ñu bëgg a àgg ci seen borom taxaw ci gannaawam ngir mu taxaw ci gannaaw Seexul Xadiim ngir mu àgg àggale leen ci seen borom ñooñu rek a ko topp waaye du ay ñuy dagu di ñoo xam ne addunaa leen tax a di ñoo xam ne lenn leen tax a jóg lu dul sàkku ngërëmul yàlla sàkkoo àgg ci yàlla mu ne almuridiin kon loolu it di lu a am solo di lu rëy rëy loo xam ni du waxe forte du waxe caaxaan képp koo xam ni bu subaa bu la neexee am nga mën nanul baaxal xadim boo àggee ci bunt ba lii may wax lépp di ci tudd sëñ Basiiru da nga cay teg sa bët kon loolu tax na nag mbooloo moomu sëñ Basiiru seede ni moom sëñ Daaru Asan ku bari mbooloo la te ñuy ay murid di ñu nammoo ca yàlla kon loolooy tax mbooloo ma fum mu leen joxañ rek ci lu jëm ci na Seexuna Ahmadul Xadiim ci liggéeyu lislaam ñu nangu nangoo joxe seen lépp ni ko sunu borom diggee woon ngir ñu mën a am ngërëmul yàlla ngir bu ñu jógee àdduna mën a dugg àdduna inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaaluhum bi anna lahumul janna joojee ñu mën a bokk ca ña cay gañe àjjana gañe ci texeek fii ci àdduna kon sëñ ah, diggante sëñ Daaru Asan ak njabootam ak seex seexu Muhammadul Mustafaa mii nga xam ni moom lañ toog ci ëttam tey di dundal di saxal lim fi defoon te mooy bis bii mu woote woon di jóg ñibbisi Seexuna Ahmad al Xadim ci Tuubaa gi nga xam ne moom la sancoon gën ko bëgg te sun borom nattoo woon ko rek xañ ko mu sax fi yoonu géej gi jaar fi yoonu gànnaar jaar fi yoonu ceyeen jaar fi jurbel jaar fi fukki at ak juróom sun borom moom ko mu soog a dikkaat ci dëkk bii mu gënoon a bëgg ci suuf ci kaw suuf kon fa tabaarakallaa Cheikh Modou Moussa xam ni kon bis boobu kat bu jara fàttaliku la bu jara màggal la ah, ndax li ci ne ci njariñ ñëpp mën cee jëriñ julli ñëpp mën cee jëriñu rawatina taalibe yi murid yëpp mu woote woon bis bi dénkaane ca lam ci dénkaane ba jóge fi ay njabootam tàmbalee ko ci sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma radiyallahu anhu mi ko jëkk a wuutu ànd ak rakkam ak taalibe yi ñu daa ko dundal ba mu agsi ci suñ jëwriñ jii di sëñ Ahmadou Mokhtar tey na ko magam yi daa defee way jun way juróom ba daa ko ne defee moom itam mu di ko ne defee ànd koog njabootu Cheikh Modou Moussa gépp ànd koog taalibe yëpp ànd koog seex yëpp ànd koog bokk yépp tey jii nag ngeen def lu rëy rëy loo xam ni bis bi naka jekk mos nay am solo macha allah waaye tey jii daa mel ni dolli ko na solo sëñ Ousmane léegi ci jotaay bi bu muy wax sëñ Ahmadou di ko wax ni kat bis boobu ñu sédde woon dara jaale woon maam Cheikh Ibrahima Fall daaw ren jii dañ ko war dara dara jaale seen Daaru Asan mooy sababus seenug ñëw fi seenug teew fi la mu wax dégg naa ko daf ko ne jox ngeen ko boroom te loolu rek mooy li ne loolu di am solo kon uh, diggante uh, sëñ Cheikh Modou Moustapha ak njabootuk sëñ Daaru Asan noonu la demee xam nañ it sëñ Fallou Ndiaye moomu nga xam ni moom laa wax léegi ab taxawaayam ci wa jumaa ji ci carrière bi 36 la fi jógee kon moo jiitu Cheikh Modou Moustapha bi mu fi jógee waxoon naa sëñ Abdou Faté Mbaala moom ni fee ko sëñ Daaru féete loon fa la féete woon sëñ Moustapha it sëñ Modou Moustapha it wéyaloon loola waaye rakkam yii nag bi fi sëñ Fallou Ndiaye jóge mu wuutal sëñ Mbaye Fallou ci jotaayu sëñ Fallou Ndiaye wuutal ko ca dëkkam ba mu ko sanc la woon mu sanc ko ñu di ko wax Dëru Njaay te mu nekk fee ca wetu ngay signé ah, ah, fa tabarakallah sëñ Fallu Njaay sañcoon ko nekkoon fa ak rakk ya ak taalibe yi ñu daa fa liggéeyal sëñ Tuubaa di ko jaar ci Cheikh Modou Moussa liggéey yu am solo di bay tool àllarba yi doon ngay tërbiyee di bay ñuy jébbal Cheikh Modou Moussa booba moo Modou Moussa nekk Taïf tool àllarba bi ci Taïf ñu daa ko bay ànd kook Cheikh si noonu moom itam sëñ Bay Fallou kon moom itam loolu la taseel mu ànd ak seex Cheikh Modou Moustapha ak rakk yi ak taalibe yi àndeen wu rafet ci liggéey ko ci diggante boobu Cheikh Modou Moustapha moom itam digal na ko mu sancub dëkk te mooy dëkk bi ñuy wax Irada biñ sancee Taïf 49 wala 39 bokk 39 ba am ñetti kon muy nekk 5 muy nekk 42 euh, jëm 43 ci la digal sëñ Bay Falloo mu sañ ci dëkk boobu di Iraada mag nee na ma ba mu ko koy digal sëñ Bay nee na ko Cheikh Modou Moustapha dafa ko ni digal naa la nga dëkk nga sanc fii ci gànnaaru Taïf ab dëkk lu tolloo ab dëkk teg mboolem ña nekk Dëru Njaay googee nga xam ni moom la sëñ Fallu Njaay sancoon bu fa toxale kenn demal njàmbur jële fi ay kàngam ñu sañc dëkk boobu sanc dëkk bi muy iraada mu nee na Cheikh Modou Moustapha teg ca ni ko bu gën sanc de sancee dëkk bi may seen jëwriñ ci tool àllarba bi di seen imaam ci jàkka ji kon loolu ba tey yooyu kàddu liñ ciy déggee mooy melokaan woowee seen dëwru meloon nañ ko xame woon ci jaamu yàlla ak liggéey mu ànd koog Cheikhuna Amadou Khadim kon Cheikh Modou Moustapha feddali na ko ah, ci njabootuk seen jawar asan te mooy ki ni may sa jëwriñ ci tool àllarba bi soññu la soññu na la ci taalibe te mel ni moom daa waroon doon kook dala naan demal rek defe nangam toog waaye gannaaw daf laa won ni kat man sa jëwriñ laay doon dama lay jiite ci liggéey bi kooka soññ na la waaye ki ni di sa imaam ci jàkka ji soññ na la ci jaamu yàlla kon Cheikh Modou Moustapha melokaan wiñ xam di ko dégg ci sëñ Darou mu boole woon jaamu yàlla ak liggéey akuk taalibe fa tabarakallah Cheikh Modou Moustapha na ci ak njabootam bu baax a baax ba kon tax na loola ba léegi mu ngi fi di dox di wéy ci njaboot gi ñu di ci sant suñu borom tabaraka di ci sant Seyxuna Ahmad al Xadim radiyallahu anhu di ci sant sëñ Darou Assane mi nga xam ne it moo nangu <clears throat> ba Euh, lool yi sax ci moom ba agsi ci noonu di ci sant it Cheikh Modou sëñ Cheikh Modou mi nga xam ni moo ko feddali ci kàddu yooyu mu wax kon noonu la mbir mi demee rek <coughs> kon tudd nañ fi euh, xalifa yi sëñ Daaru Asan yi nga xam ni ñoo ko wuutu gannaawam ñëpp rek ñu ngi ci exposé bi tudd nañ leen kenn ku ne sax ak at mi ngi fi toog ak mi yàlla dogal nga wàccub liggéey tudd nañ ko gannaaw sañ Bay Falloo sëñ Ousmane moom itam wuutu ko fi ci ndigalul Serigne Cheikh Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sa waajur bu baax wa keroog ba sëñ Bay Falloo wàccub liggéey ba mu ñëwee kàddu yu mu doon wax ñëpp di ko dégg ba mu santee sëñ Bay Falloo waxub taxawaayam ak pëstéefam a ñaar fukki at ak juróom-benn yu ànd ak moom gannaaw Cheikh Modou Moustapha juróom-ñetti at wax ni. Euh, fu mu fi mos a yendu rek wala mu fanaan fa ci ndigalam la ko defee lu mu fi jur jébbal na ko ko lu mu fi am jox na ko ko waaye wax ni nag lam doon mën a mën fàggu suñ boom fay na ko tey ba fay ko loolu xamu ko woon ba di ko fàggu ba mu daaneel ci loolu daa wax ni tey nag sëñ Ousmane a fi ne na way jur na bàyyi jiitu doom topp ci rakk jiitu mag jiitu rakk topp ci na bàyyi jiitu doom topp ci rakk yit na jiitu mag yi na jiitu mag na jiitu rakk topp ci kon dénkaan loolu it moom itam ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma lañ ko amee gannaaw bi fi sëñ Bay Falloo jógee ba mu ñëwee di jaale si ak di seede si ak di ko sant ko gërëm ak di samp sëñ Ousmane mi ko fi wuutu loola la fa digle kon digal yi musta dañ di tàmbalee Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñëw ci sëñ Daaru waaye gannaawam it musta dañ di jóge ci Cheikh Modou Moustapha di ñëw ci sëñ njabootu sëñ Darou Assane ak njabootu seex moo Modou Moustapha sëñ Ousmane moom nga xam ni it moo fi wuutu sëñ bay Fallou moom itam liggéey na fi liggéey bu rëy kenn ku ne daal jamono ji nga taseel bi nga ñëwee ak la nga taseel def nga fi jalware waaye nag sëñ Ousmane moomu dafa fedd li bu baax a baax a baax a baax ah, lii nga xam ni mooy des gi njabootu sëñ Darou Assane des ànd ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha te loolu doon ci ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha man nañ ni ci la xër gum am ci xër ci njabootu sëñ Darou Assane ak yaakaar jum ci am ci ànd ak ñoom ci liggéey bi loola kon moo waral njabootu ko sëñ Darou Assane des ci ah, kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha ba léegi waaye nag sëñ Ousmane mii nag bi mu dikkee da koo gën a fedd li ndax daa digle woon santaane ni képp koo xam ne yilif na ëttub Cheikh Modou Moustapha bii te mooy ëtt bii mu doon ci sëñ Tuubaa di kërug Daaru Xudoos gi na leen yilifaale loolu it ndigal la loo xam ne ci sëñ usmaan la jóge kon loola it kuy sant ci loolu ci taxawaay boobu war ngaa sant sëñ Ousmane ci loolu muy lu ama am solo mooy li ma wax rek kenn ku ne fa nga fekk jamono liggéey nga fa liggéey boobu nag mustadak sëñ mën jaay asan wóotu ko fi kasaalika ah, di jëwriñ def fi liggéey yu rëy rëy ci diggante Taïf ak Touba bi mu fi jógee sëñ Abdourahman wóotu ko fi kasaalika mbir mi di dox ba ci sëñ Mbàkke ah, ba ci sëñ mi nga xam ni moo mujj a wóotu sëñ Daaru Asan ci ay doomam bi mu fi jógee moom itam sëñ Mbàkke Xawa wuutu ko fi di sët bi njëkk a wuutu sëñ Daaru Asan sëñ Cheikh Fassila Ndiaye tege ca sëñ Mbàkke la sëñ Abdou Khadir mii fi ne yàlla nañ fi bokk yàgg te wér sëñ Ahmadu njaboot gépp njaboot sëñ Moustapha gépp bokk yàgg ci suñ kanam nu yàgg ci seen ginnaaw sëñ bi àggale ay mébétam ci sëñ bi ak lislaam nu bokk ko àggale kon sëñ Ousmane ñu ngi beesal rek cant yee ngërëm yi ci teraanga ji nga xam ne teg ngeen ko ci loxoy sëñ Abdou Khadir mi fi wuutu sëñ Daaru Asan te muy lu rëy a rëy di la am solo di la ñaanal liggéey bii la sëñ bi dénk yàlla na nga ko àggale fa ko sëñ bi bëggee ba kawe njortam ànd ak gudd fan ak wér suñ borom yokk na xiiwal yi bu baax a baax a baax gannaaw bokk na ci liy tax ñu gën a jekku liggéey bi yokk wér gi kon sëriñ bi di sëñ Moussa Jobbe jiite mbooloo mi ak rakkam yi mu àndal yëpp ci ah, ah, turu sëñ Abdul Xaadir waaye jaar ci sëñ Moussa Faty mi nga xam ne mooy jëwliñam te bëggoon a ñëw te am gàllankoor ñu ngi beesal ay cant ak i ngërëm di ñaan yàlla nañ yàgg a taxawee bis bi te at mu jot rek yàlla nañ ni ren jii moo kawee daaw te lépp rek di ngërëmul sëñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.